على البشارة بالحياة والزوار لذا بكوني عن المحسن الزوار يا ذا البشارة وجاتني يا خير حجاد بي سفيدي علمت كل إله عبدا له أبدا بما لي اقترى في مكسي وفي سفي الموسك بي في دار سلام الجواد شيء بعسكر حين تلقاه وفي زمار صلى عن عصمتني ربي من بوزا ومن غتري تواسلي لك في الأعداء kër ñu ngi nuyu bi nga xamante ni moom lañ fa tàmbalee ba lañ fa tàmbalee ñu jox suñu jëwriñ sëñ Dame Diouf mi nga xamante ni xam mooy jëwriñu Daara Dakar moom lañu njëkk a euh, déglu ci kàddu yi nga xam ne lay bàyyi bu ko defee sëñ Cheikh Bey mi nga xam moo nekk chef de chantier tam bu ko defee mu am yeneen leeral yoo xamante nii dina ko ci amal kon bismillah sëñ Dame ah, a baax ah, siyaar ñëpp di sant bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne fas nañu ko fi yëkkati te di ko def ci turu sëñ Mbacke Thioune mi nga xam ne nii moom mooy jëwriñu liggéey bi te xëy na mu nekk ci biir ci wàllu féete beneen beneen barab bi xëy na sax ci kanam dina dellusiwaat ngir gën a yaatal bu baax a baax fi nga xam ne fi la liggéey bi tàmbalee ba fi ñu ci toll fi ñu ci toll fii waaw waaye li ñu ciy jiital rek mooy gannaaw bi nga xam ne am nañ ci ndigalal sëñ bi bi mu ñu joxee bis jàppal ñu bis suñu tàmbali liggéey bi ba tegal ñu xeer yi boole ñoo ak sëñ bi mu tegal ñu xeer wi ci la ñu fas yéene nag jublu ci liggéey bi nga xam ne nii moo ñu dajale tey ñu fas yéene couler première phase bi ah liggéey boobu nag muy complexe daara ji diggante salle de prière muy mosquée bi ak bloc administratif bi ak wàllu internat bi ak fi nga xamante ne fa la kuréel beeg répétition yi yëpp war a amee ak fi nga xam ne fa la ñuy defee assemblée générale yi loolu lépp bloc boobu ci lañ nekk ci fas yéene koo liggéey te tey ji ñu toll ci di couler première phase bi ah ñun na xëy na dañuy wax rek tàmbali waaye ñi nga xam ne ni ñoom ñoo taxaw liggéey bi ci ba mu tàmbalee ba léegi muy ñoom Cheikh Bey nga xam ne ci wàllu technique bi loolu seen seen domaine la ñu bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ngir taxaw liggéey bi ñoom li ci a leeral wala lu ñu ci war a xam ñoom ñoo ñu koy ñoom ñoo ñu koy koy wax bu soobee yàlla ak ñoom sëñ Ablaye Mbuub mi nga xam ne ñooy taxaw ci côté boobu di ci soññ saa mbokk taali bi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom pas-pas bokk ak ñoom yitte ngeen nga ne liggéey bi ñu def fii liggéey sëñ Tuubaa liggéey lislaam la te it liggéey boo xamante ni dañ ko woote ci turu sëñ Tuubaa ngir jëmmi lislaam loolu ñun ñëpp ñoo ci war a ànd bokk ko def ko ba tax na mboolem membre yi nga xam ne ñoo fasafoo liggéey bi ak ñi nga xam ne sax ay sopp lañ wala bokk ak ñoom pas-pas saa su ne ñu ngi feeñal seen yéene di jox seen ñaq di ko joxe ngir ñu defal leen ko ci liggéey bi loolee nag di liggéey bu yaatu boo xam ne ba ci ñu nekk Argentine ba ci nekk Italie ba ne États-Unis kenn ku ci ne saa ku ko yëg rek jàpp ni kenn ëppale la ci ba tax nga ciy def sa sa ñaq kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di di leen ci sant ci turu sëñ Mbàkke leen sant ci mbooloo mi yëpp xam ne ñi képp koo xam ne ni joxe na ci joxe na ci rek defal nañ ko ko ci liggéey bi tey ñu ngi ko ci sant ñaanal suñu borom mu defal ko ci tawféex kon dañuy bàyyi sëñ Cheikh Doy mi nga xam ne moo yor wàllu liggéey bi bu mu dëkk si ci fànn goo nga xam te ni mooy jëm ci wàllu technique yi bisimilah. waaw barke borom taw ba jox sëñ Cheikh Doy sax dafa am lu ñu fàtte woon ndax euh, liggéey bi lii ñu def lépp ndigal moo ko laal euh, bi nga xamante ne toll nañ ci war koo tàmbali ci lañ dem ci sëñ Sidi Muxtaar wax ko ko mu yebal fi sëñ bas sëñ bas yebal fi suñu sëñ baara laxaat moom moo teg xeer wi kon loolu dañ ko fàtte woon ci tàmbali gi moom lañ doon fàttaliwaat nii bu ko defee ñu jox sëñ Cheikh Bey mu wéyal li nga xamante ni mooy li ci des bisimilah sëñ Cheikh. bisimilah ci borom Tuubaa barki suñu Tuubaa barki xas dey xanaa di fàttali lu jëm ci liggéey bi gannaaw bu ñu sant suñu borom julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ci ndigal sëñ bi nag boobu ba léegi daanaka mbooloo mi ñu ngi siy góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ñëpp a ngi si wane seen i yitte ak seen lépp ñu ngi ko ci wane ak seen i doole ak seen pas-pas bu baax a baax a baax a baax xanaa di di di di présenter liggéey bi rek muy première phase bu ñu jublu tey pour couler ko muy euh, complexe bi ñu tàmbalee ci euh, jàkka bi. donc tey moom lañ bëggoon tàmbalee mu nekk première phase bi bu ñu paree doog jublu ci beneen partie bi nga xam ne moom mooy accueillir dongo yi nga xam ne ñooy nekk ci beneen boor bële na le fa la bureau administratif administratif war a nekk muy boor bële na le tey dañuy tàmbalee. wallum jàkka ji xam naa si loolu la ñuy kii rek bañ a bañ a bañ a guddal ñu xam ne loolu moo nekkoon tey liggéey bi xanaa di sant mbooloom yëpp nga xam ne ñëpp ñu si jëfoon gis nañ taxawaay bi gis nañu woote gis nañu yëg gis nañ lépp gaa ngi ci jàpp bu baax a baax a baax a baax di leen sant te tey ñaan liggéey bi ñu ñu tàmbali yàlla nañ ko àgg li mottali ko ñëpp ñëpp fekkee ko barki suñu tuwaay barki xas de suñu tuwaay di sant ñëpp bu baax a baax a baax xanaa di leen euh, di jox sama mbokk taale bi xam ne mooy suñu Moussa mooy mu nekk maanaam mu ñu bokk nekk administration moom it xam naa mu am lu mu ci yaatal bu baax a baax ngir àggee ko mbooloo mi bisimilah. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah di siyaar mbokki taal ba yëpp di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sant di tubaat baax ci kàddu yi di jé di jégluwaat baax a baax a baax a baax ci message yi ni envoyé guddee gi ñu ngi ciy jéglu baax waaye fi ñu ñëwee rek mooy. comme liggéey bi day dox te taxawul dañoo bëgg rek ñëpp jàpp ci rek ci barke Sëñ Tuubaa rek ñu bokk taxawu liggéey bi liggéey bi mën a àgg maa ngi jéglu baax ci kàddu yi ak Sëñ Tuubaa voilà. comme moom mooy jëriñu liggéey bi yëpp waaye fi mu daal fii daal ci lañ toll ñi ngi ci woo mbokki taalibe yëpp nag di ci woo mboolem jullit ñi nga xamante ni liggéey lislaam la lu jëm ci wàllu jàkka ji ak internat bi nga xam dina am ak mboolem liggéeyu daara ji daal loolu nag ñu ngi ciy sant sëñ Tuubaa bu baax mi ngi ci taxaw bu baax lu ne fekk nañ ci kon nag ñu ngi leen di sant ci kàddu yi nga xamante ni sëñ Cheikh ba yëkk ko ak sëñ Moussa ak sëñ Dame mi jëwriñu daara Dakar kon ñu ngi ciy sant ñëpp di ci woo ñëpp ci barkeb sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di fàttali ne ah. liggéey bi dañoo tàmbalee gum rek waaye du taxaw. nii ñu ko doxalee nii noonu lay wéyee ba keroog ñu nopp ñu joxe caab yi. waaw kon nag ñëpp def Pastef ñu gën xam ne ne ñu gën a laaxas waaye te xam nañu doore door dong dong dong am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ñuy xaar yoo xam ne war nañ kaa matale. waaw yàlla na dajeeg ndimbal parce que xas dégg. للخلق منتديا مدى عدا قلب كل زارك الحجر من بعد كوني يا والله في أبد وبعد كوني غادي والفاتح

اليوم مغترب عند مسار ذوي العزياء والسمور جواب حزبي

بالمدير المدافيس حقد وزاف حدري ولا وكنت له عبدا مع دلالي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واقل عقدة من لساني يبقوا قولي kon ñu ngi sant yalla suma borom sant rasulullah sallallahu Alaihi wasallam sant cheikhul khadim suñu yaakaar kon tay di Diber, fukki fan ak juróom ci wéru mars Don bis bi nga xam ci lañ jappon collage complexe culturel isbu tarixa dar khodos mo don tawfeex gu reey go mom suñu borom defal nañ ko mu doon ci bir quartier bu résidentiel di Sacré-Cœur extension VDN ñu fas yéene fee yéene taxawal fi ab jàkk boo xam ne dana fi ne xam ne yéene ji sax mooy dem moom taxaw taxawaayu juma nga xam ne des julli jumaa ni nga xam ne moom lañ koy defee ci barabu jumaa yëpp mu abrité en même temps it daara joo xam daar alxuraan lay doon ndax actuellement ni sëñ Tuubaa dimbale ñu ba kuy liggéey sëñ Tuubaa ku ne da sëñ Abdu Lahat nga xam ne pàggatee fi addinaam nee na jël na alxuraan def ko pàggatee fi alxuraan ndax alxuraan dafa jógee si yàlla jaar si Seydina Jibril ak si Rasulullah sallallahu alayhi wasallam te jàllul fenn ba tax na yéene ji nga xam ne amoon na ko si alxuraan foo ko déggee rek dëgg kook alxuraan moom sëñ Tuubaa te sëñ Ablaat li mu waxoon nee na am na juróom-ñaari jàkk yoo xam ne nekk na ci biir Tuubaa xam ne jàkk ju ne day jàng ñaari kaamil yu suba benn tisbaar benn tàkkusaan te neen loolu dëkk bi léegi mu am téeméer at te am na téeméer at fi mu toll nii te loolu jëllagul boo ko seetee 4 x 7 28 la 28 ku nga xam ne mooy a Touba sëñ Saliou moo tax bi mu ñëwee dana ñaar fukki ak juróom-ñett moom nee na wird la war a doon kon loolu euh, li sëñ Touba waxal boppam nag mu doon loo xam ne lu mu bind si lawhul mahfuz la jógee te dafa wax ne yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalilu hëbla kunta tabib alxuraan la jëm def ko muy xaritam def ko muy soppeem moom mi xam ne moo ko womatal lépp ba lépp lu mu doon si loo am ba lii lépp mu daan am kon loo tax képp koo xam ne fu ñu liggéey sëñ Tuubaa rek du mën a ñàkk am alxuraan am fa dayo xam dayo ju la ñuy naan yàlla defal ñu barke si ñaar yëpp ba liggéey bi àgg ba julli fi ba julli fi jumaa ay ndongo yu bare bari bari mokkal fi kaamil bi ndax yaakaar na daanaka lu néew la fi mu toll ni ci ci ci li am laal loolu mooy yéen joo xam yéen am bu taxaw tawfeex nag liggéey na am na ci fànn yëpp ba si liggéey bi lépp loo xam ne lu aju la si côté technique yàlla dimbale ñu ba membre Hizbut Tarqiyyah Darou Khoudoss ñoo ko taxawee kon bu fekkee li aju si études yi ak réalisation yëpp noonu la demee études yi dalee si études yoo xam ne mooy plan architectural yi kon si biir membre yi ñoo ko defar li jëloon si plan exécution yi it membre yi ñoo ko defar lépp lu aju si wàllu côté euh, suivi de chantier côté maçon yi ak côté yooyu yëpp daanaka lépp ci biir Hizbut Tarqiyyah la nekk mu doon loo xam ñoom ñoo taxaw liggéey ba nii mu toll mu toll ko Euh, tey nag la ñuy deuxième phase bi pour nga xam ne rez de bi dana féete boor incha allah bu noppee fas yéene fas yéene ñoo taxaw bu bi pare commencé ne fas yéene taxawal étage euh, étage premier étage bi si suuf nag kon euh, jàkka ji moo fi ne ak barab boo xam ne benn bureau moo fa ne benn administration lay doon ak benn hall boo xam ne hall répétition lay doon muy accès si kaw nag premier niveau bi li ñu si am yéene mooy internat bi nga xam ne actuellement dañoo luyee ne ñu fas yéene ko indi bi xam ne jàngalekat bi dana fi am néeg am fi salle de bain am fi aw waañ xam ne ki leen toggal fi ne ak barab bi xam ne fa lay ndongo yi ak barab bi xam ne bu ñu dallu yi foofu la ñu war a dalloo mooy ak si deuxième niveau yoo xam ne war nañ ko fa taxal moo xam sono la moo xam direction li ne xam ne mooy liggéey bilaay min sitaani rajim bisimilah barke sëriñ Tuubaa waaw moom nag comme niñ koo gisee nii rek liggéey la boo xam ne bii bi maanaam mën ne wax ci dina yomb lool ndax jëf ji daa ëpp doole wax ji ndax biñ ko tàmbalee ci diir bu gàtt fii def ci am ndaje dafa mel ni ñoom ñëpp dafa dugg ci xol yi dugg ci xol yi mooy ku ci ne da ngaa ñëw indi sa sam koom indi sa doole indi sa xalaat ñett yooyu nag lañ boole ba tax ne liggéey bi buñ ci jógee motu weer sànc bi ku fi ñëw wax dëgg yàlla xam ne motu ñaari weer yëkkati nañ ko ba dañu yaakaar ne sax dañuy def élévation taxaw ba jëmmi jamono waaye yàlla def na bañ commencé ba léegi taxawuñu waaw mu yi ñi ngi ñëw di teew ñi ngi ñëw di joxe ñi ñëw di indi seeni xalaat te ñett yooyu nag moo yor jamono moo yor àdduna moo yor liggéeyu yàlla te lii liggéey yàlla la ndax wax dëgg yàlla jàkka moom suñu ko waxee ñëpp ko bokk bokk ga ñëpp bokk nag loolu moo dem ci xol yi ba ñeneen ñu nekk ay membre sax ñi ngi fi ñëw di teew ci liggéey bi ak jël seen ñaq di ko ci dugal kon nag cant googu dañuy yaakaar ne ñëpp lañ ko bokk maas la ndax ñun liggéey bi dañu jàpp ne liggéey la boo xam ne liggéey la yàlla boo xam ne dafa jaar suñu loxo war a dem ci jullit yëpp waxuma murid yi jullit yëpp la war a dem loolu nag buñ ko defee la gaa yi ñëw dimanche bu ne dañuy ñëw yenn bi kenn du xam kii maçon la wala kii moolkat la wala kii maanaam de la wala gaa yi ñoo àndoon defandoo liggéey yëpp ko defee nii waaw fii lañ fas yéene yenn tey ci kàttanu yàlla ci liggéey suñu Tuubaa ci jàkk ji massa boo xam ne bii moom kii la tant que village bi motul amuñu pas pas jóge fii buñ dee prendre dañu prendre li nga xëyee tey moom la gars yi attaqué dañu fas yéene mu yegg ci kàttu yàlla. wa fi daadu bi sa aw bi ma safari makandani fi duyu riya ilahi bila kadin wali kunda fi la la la ولو سودا لا عليم به